وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي نيو مبوكي ني توب سي تيري بي نيو شرامي نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى مؤجس فن مصطلح الحديث di jàngale naka la ñuy def ba xam xadiis yi ya ak ya wéradi suñu jotaayu tey mooy suñu ñaar fukkeelu jotaay ak juróom walillaahi alhamdu ñu nekk ci cetu téere bi nga xam ne léegi tey jii ñu daal di noppi ci chara bi bi idnillaahi taala yàlla na ko yàlla nangu yàlla def ko mu doon lu bari njëriñ waaye mu doon lu barkeel suñu jotaay bi weesu woon ñi ngi doon leeral yemoon ci tomb bi ibnu xajar indi tuddee ko xaatima maanaam njeexitalu téeréen bi mu ne ay mbir a ngi nii lu am yitte la lu am solo la nit ki daldi di koy xamlu ci fànn bi doonte boo delloo ci téere yi ñu tuddee téere mustalaxul xadiis duñ ci yaatal duñ ci yaatal dañ koy romb rekk la sa ëpp waaye yow miy jàng fànn bi war ngaa góor góorlu ba yaatal ko ci yenn téere yi ngir nga daal di koy peek bokk na ci loolee ñuy wax mooy xam li ñuy tuddee tabaqaatu ruwaat muy ñi nettali xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i seeni maas jamono ju nekk rekk ña fa dund te ñu siiw ne ñoom ñoo doon nettali xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxoon ne buñ leen doon tënk mën lañ leen tënk si ñeenti jamono saaba ya ak taabi'un yi ak atbaau taabiin ak tabaul atbaa nga xam ne du génn lu ñuy tuddee ñeenti téeméeri at ba juróomi téeméeri at loola boo ko xoolee ñu nettali xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la sa ëpp si jamono jooju lañ dund ñooñu nag xam leen ku si nekk ak sa jamono loolu lu am solo la bokk na sa la koy yombal mooy xam kañ lañ juddu xam kañ lañ faatu waxoon nañ ne xam nit ki kañ la juddu loola nekkul lu yomb ndax ba muy juddu njortuwuñ woon ne moom ku màgg lay doon boroom xam-xam lay doon ba ñuy yittewoo juddam moo tax boroom xam-xam yi di faral di wuute si juddu ñuy nettali xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa amma seen ak faatu nag am na ay wuute waaye moo gën a néew wuute ngay am ci juddu ni ko noonu tamit dana xa dana maanaam dimbale nit ki ngir xam seen tabaqaat seeni maas mooy xam dëkk ya ñu dëkkoon ak fa ñu jànge waaye it mu mujje ko mu ne xam seen mbir si wàllu jarx wa taadil ak wàllu jahaala xam ñañu laabal seen ab xadiis ak ñañu jam seen ab xadiis ak ñañ ña nga xam dañoo réere seeni mbir foofa la yemoon démb tey nag ñu war a xuus ci bunt bi ñuy tuddee aljarxu wa taadil muy laabal nit ki ak jam ko buñ ko laabalee mooy dañoo war a jël xadiisam buñ ko jamee mooy dañoo war a delloo xadiisam téere yiñ ci taalif nag bari na torop boroom xam-xam yi dañ koy xaaj ci ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi mooy téere yi nga xamante ne ñañ fay rotal sa ñay nettali xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom lañuy tuddee as siqaat mooy ñañu wóorlu seen ab xadiis mën kay tegtaloo si bunti xam-xam yi comme téere bi ñuy tuddee as siqaatu libni xibbaan ibni xibbaan taalif na si téere ni ko doon tamit al ijli taalif na si téere euh, seen téere yooya nag firiwul ne kuñ forotal rekk ab turam moom siqa la dañoo wala wóorlu xadiisam dëgg dëgg dëgg déedéet demeewut noona ndax moom mën naa gis ne kii ku ñu war a wóorlu ab xadiisam la boo ko càmbaree dëgg dëgg dëgg dangay gis ne kenn du wóorlu xadiisam rawatina jëfinu ibnu xibbaan ak ijli ndax ñoom dañ leen a si njuñ doon tuddee al tabaqatul mutasahilatu fi tawfiq ñi nga xamante ne dañoo sàggan yomba laabal xadiisu nit ki te àggul ci dayo boo xamante ne war nañoo war a laabal xadiisam ndax ibnu xibbaan ku mel ni moom moom dafa gis ne liy cosaan si doomu aadama mooy ak maanute ki ñu xamul ci moom dara kookee day dellu si cosaanam mooy ku maanu la buntu boobee nag buñ ko bëggoon a wéyal si xadis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana bëri xadis yu ñu nangu te du àgg fañ ko war a nangoo ndax dëgg la ab jullit moom li cosaan si moom mooy jullit bi ku maanu la waaye nag si buntu riwaaye muy buntu nettali xadis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa ñuy jël xadisu kenn il faut maanute googu daf ñuy wóor waaye duñ si demee ak njortu bu ñu wóorut nag boobaa duñ ne moom dañ kaa jam waaye duñ ne moom dañ kaa laabal day nekk si digg bi te ki nekk si digg bi mooy ku ñu réeree mbiram ndax moom ku ñu war a jël xadiisam la wala ku ñu war a warta jël xadiisam ku mel noonee boobaa du ñu jël ab xadiisam moom la ñuy tuddee almajahil moo tax ñu daan wax naan ibnu xibbaan kaana mashhuran bi tawthiqi almajahil moom dafa siiwee woon di laabal ña ñu réeree seen ab xadiis si ñay nettali xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy xaaj bu njëkk bi xaaj bu ñaareel bi mooy xaaj buy jàkkaarloog xaaj bu njëkk bi téere yoo xamante ne seeni borom dañ kaa bind tuddee ko tur woo xamante ne day màndargaal ne képp kuñ forotor rek dañ kaa jam mooy kutubul kutubu duafa ñañ fay rotal mooy ñañu wéradil seen ab xadis kese kon téere boo dégg rek muy xaw a junjuloo la da nga koy classé si xaaj bu ñaareel bi comme téere al uqayli bi ñu tuddee ad duafa téere ibnu xibbaan al majruhin ni ko noonu tamit téere an nasai ad duafa wal matrukin ni ko noonu tamit téere ibnul jawzi taalif na tamit si ad duafa wal matrukin ak ñeneen ñu dul ñoom ba si téere bu ñu tuddee al kaamilu fi duafa ar rijal limni adi nga xam ne daf na kee téere bi mooy téere bi gën a mat si ñañu wéréedul seen ab xadis sa ñey nettali xadis ya ibnu adi moom moo ko taalif waaye it fii la ñu waxoon sa bu njëkk ba rek la ñuy waxaat fii bul yaakaar ne képp ku ñu rotal si seen téere yooye dañoo wéréedul ab xadisa mutlaqan waaye ñoom dañoo am manhaj bu ñuy demee mooy buñ gisee nit ku ñu wuute si mbiram ñii di ko laabal ñii di ko jam wala ñii di ko xaw a sax kobos ku mel noonu ñoom dañ koy jël rotal ko seen téere ya pour nettali xilaaf gi ci nekk muy wute gi ci nekk waaye firiwut ne firiwut ne képp kuñ fa rotal rek dañoo wéré di la ab xadiitam ay temps sax nga gis kenn si ñoom am fitu dugal si téereem boobee ab kàngam boo xamante ne nii ak wóolu wóolu xadiisam ak laabal ko kenn sikk sàkkowu si waaye ànd ak loola mën naa gis benn waxu kenn rek ku mel ni day jam kii mu sukkandiku si loola ba indi ko si téere ba te yaakaar naa bu fekkoon ne loolu lañ doon def si nit ñi ki gën a baax si kaw suuf ki gën a baax si jamonoom boo doon natt waxi nit ñi si moom ay temps nga gis waxi koo xamante ni da mel ne lu koy jam su fekkee ne su loolu nga sukkandiku ba bëgg kaa jam boobaa kenn du des si kaw suuf boobaa kenn du des si kaw suuf ba si ngën gi mindeef sa di yonent bi sallallahu alayhi wa am na ay jullit yoo xamante ne ni moom muccut si seen làmmiñ kon fa maa ko bi gayrihi wala iyaadu billah te loolu musiba la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ngën gi mindeef mooy ki nga xamante ni ni moom yàllaa ka laabal gëne la ko si doomi aadama yépp kooku su demee ba nga xamante ne ñenn ñi si jullit ñi waxuma nag yëfar yi waaye ñenn ñi si jullit ñi ay temps sax ñu jël seen ab làmmiñ wala seen ab këyit wala seen ab bindukaay bind si moom loo xamante ne dalay wóor ne dafa mel ne ña ngi koy jam wala yaadu billah loolu musiba la kon bu fekkee ne loolu day dal yonent bi saasam kenn kenn ku du yonent bi waxee su ko moo tax téere bi ñu tuddee ad-du'afaa lil uqayli boo fa demee danga fa fekk turuk ali ibnul ali ibnul madini te ku nekk xam na ne ali ibnul madini kenn du ko laaj jabalun mu nekkoon cheikhul buxaari nekkoon ku ràññeeku lool si fànn bii di fànnu eh, ilmil xadis rawatina ilmil ilal moo tax al imaamu bi mu gisee loolu dafa diingat uqayli si jëfam jooja mu ne ko ama laka aqlun yaa uqayl ndaxte aql ak uqayl benn baat bi la aql mooy xel uqayl mooy as xel maanaam dañ kaa dañ kaa tuutil moo tax mu daal di boole ñaari baat yi ngir wax ko li mu def ab kawteef la mu ne ko amalaka aqlun yaa uqayl mu nekk wax ju tënku waaye wax ju xóot maanaa ndaxte bu amoon xel-xel dëgg dëgg dëgg xel al imam ali ibnul madini du ko rotal si téeram boobee kon bul yaakaar ne képp kuñ fa rotal rek dañuy dellu ab xadiisam moo tax al ibnu adi bokk na si baaxam mooy bu ñëwee nettali li ñu wax si nit kiy nettali xadiis ñenn ñi jëm ko ñenn ñi laabal ko fa muy mujjee mooy day tënk wax yi yépp rotal ay xadiisam yi nga xamante moom lañ koy diingat wala yuñ ko du diingat su ko defee sa lay mujjee nag daal di koy jox atte ba mu yellool atte booba mën naa nekk ku ñuy jël xadiisam waaye mën naa nekk ku ñuy delloo xadiisam xaaj bu ñetteel bi nag mooy téere yoo xamante dafa njaxas mooy dafa boole ñañi laabal ak ñañ dul laabal ak ñañu réeree seeni xaal min xaytul jarx wa loolu nag téere yu bëri la boo delloo téere bi ñu tuddee at taarixul kabir lil buxaari si at si si xaaj boobu la al jarx wa taadil abi xaatim si xaaj booba la téere yu ñu taalif te jagleel ko gaa ña nettali xadiis te ñooñee ñooy rijaalul kutubi sitta ña nettali xadiis te seen xadiis nekk si juróom benn téere ya gën a siiw juróom benn téere yi gën a siiw te buñ ko waxee mooy saxiixayni saxiixul buxaari muslim ak ñeenti sunan ya muy abu na tirmidi nasaay ibnu maaja loolu di juróom benn téere yooyu seeni gaa yi yooyu nettali seeni xadis borom xam-xam yi taalifal nañ leen ay téere yoo xamante ne dañoo xamle seen ak jaar-jaar foofee it <clears throat> lañ fa boole mooy ña wéradi ak ña wér xadis ak ñi nga xamante ne nii dañoo déng xam dañoo réere seeni mbir min xaysul jarx wa taadil ni ki doon tamit même téere yi ñëw seen ginnaaw di làmbu téere ya gën a kawee téere yi moo xam ya ko jiitoon wala ya ko gën a ya ko gën a suufee comme téere Ibn Hajar bi muy tuddee taajilul manfaa nga xam ne dafa rotal ñay nettali xadiis yonent bi sallallahu alayhi nekk si téere ñeenti borom xam-xam yi siiwee seeni madhab muy Abu Hanifa ak Malik ak Shafi ak Ahmad ibnu Hanbal seeni rijaal si seen téere yi nga xam ne taalif nañ ko ku nekk xam na ne Malik moo taalif Muwatta Ahmed moo taalif Musnad ah, al imaamu Shaafi am na téere bu ñu koy tuddee Musnad du taalifam waaye dañ kaa dajale ay taalibeem ay taalibe taalibeem ñoo ko dajale jëlee ko si seen sëriñ seen sëriñ boobu nettalee ko si Shaafi mu nekk loo xam dañ ko kaa dajaleel ni ki mel noonu tamit noonu lañ defal Abu Hanifa maanaam dajaleel nañ ko benn téere si ay riwaayaatam ay xadiisam yoo xamante ni mi ngi si biir ay téereem yu yu yu wuute ñu dajale ko nag. tuddee ko musnadu abi xanifa wala ñu tuddee ko musnadu shafii xadis yooyee nag ñu dajale si shafii ak xadis yooyee ñu dajale si abu xanifa ak téere malik ba ak téere ahmad ibnu hanbal seeni rijal moom la ibnu xajar si téere booba daan leen xam xamal seeni jaar jaar tuddee ko taajulul manfaata taajulul manfaa mu nekk téere bu am solo <coughs> kon loolu yëpp si gàttal mooy li gaw buntu bii nga xam ne mooy téere ya ñi <coughs> téere ya ñuy dellu pour mën a xam ña ñuy tuddee rijalul isnaad seen xaal si li ñu tuddee aljarx wa taadil aw il bu ñu xamee nag téere yi ñuy dellu il faut ñu xam naka nañuy jëflanteeg téere yooyee jëflante gi nag moom la ibnu xajar leeral fii leeral na si boog wala boog jukki na si tuuti donte na xóotalu si lool moo tax dangay ngay bàyyi xel bi muy tàmbalee tomb bii daf ne wa min al muhimmi bokk na si li am solo si fànn bii xam ko te téere yi leeraluñ ko wala bokk yaataluñ si te man yaatalu ma si mooy tomb yi ma lay tuddal kon day junj rek su ko defee yow mi nga xam ne yaay sàkk ko xam-xam bii ak yow miy déglu sharia yi yaa war a mën a def effort nag pour gën kaa yaatal waaye moom wax na la ne lu am solo la si fànn bii ndax fànnu jarx wa taadil kenn mënut diingat xadis te xamu ko ki ko réeree mënul xam atte yi mu war a jox xadis yonente bi sallallahu alayhi wa ndax nañuy lanteek ña wax si fànn bi ak ña ñuy nangu seen ak wax ak règle yi nga xam ne boroom xam-xam yi tër nañ ko si bunt bi loolee ku ko peegul mënoo xam kañuy jël waxam ak kañ lañ koy jël su fekkee contradiction am na muy jàkkaarloo diggante waxu kenn ak waxu keneen si ñiy wax si bunt bi naka lañuy def ba lënkal kenn si ñoom ñaar su dekkee nag kenn nga xamante ne nii kenn ki la moom ay waxam moom moo ñëw di woroo ak moroomam maanaam mu wax ñaari wax benn wax ji day waroog beneen wax ja naka la ñuy def ba jël ko loolu yëpp ay tënk la yoo xamante ne ay réegal yu am solo yu ñuy jàng si bunt bi ngir nit ki da daal di koy mën a peeg moo tax mu neen ko wa maratibul jarxi état bi nga xamante ne moom la ñuy jamee aji ñettali xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bëri la nee na wa aswauha ba sa gën a yées mooy alwasfu ñu daal di koy melal moom mi moom mi ñuy jam bi afala ci baat bu composé woo nii afal afal mooy moo gën a mën a def akdabu naas moo gën a mën a nar nit ñi kon baat bii di af afal dafa bokk ci li ñu tuddee si grammaire arabe siga mubaalaga tëggin la woo xamante ne nii dañ kaa taral lool ba kuñ ko melal maanaam moo si sut amul ku ko si raw su dee lu baax la amul ku ko si raw su dee bon la amul ko si raw wal iyaadu billah moo tax képp kuñ ko melal te lañ sa jublu mooy jam ko loola melokaan wu tar la woo xamante ne dañuy dellu ab xadiisam moo tax mu ne ka akdabi nnaas comme ñu ne moo gën a mën a fen ñëpp kenn dàqu kaa fen loolu kuñ ko wax rek xamal ne moom kooku moom raxasul si ay si ay mbiram mu ne summa dajjaalin wala ñu wax ko moom ab dajjaal la ku nekk xam ne ne dajjaal mooy kookee di ñëw si mujjug jamono indi fitna ju rëy lool nga xam ne day làmb kow suuf te saa mënta taxaw te dajjaal wàccut moo tax ñi naan feebar bi saa day bëgg a taxaw loolu ay wax rek la saa moom taxaw taxawagut ndax màndarga yu mag yi moom benn wàccagu si dajjaal moomee bu wàccee lépp lu mu mënti wax day fen ni mu mënee fen noonee nag nga xam ne ki mu mujjee rey da kay rey wax ña woon jataay ba ne ko ne leen mën naa kaa dekkil bu ma ko dekkilee est-ce di ngeen ma di ngeen ma gëm ñu ne ko ah dekkil ko mu dekkil ko nga gis pouvoir bu ko yàlla di jox bu ko dekkilee waa joojee da koy weddiwaat moom mi mu rayoon ne ko maa ngi waat si yàlla ne yow yaay dajjaal fenkat bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi waxoon nañu xabaaram si lay mer nag bëgg kaa rey waaye du ko mën a rey ndax booba suñu borom aar na aar na kookee ngir dëggoom moo tax dëggu rek moo am solo nit ki bu dëggoo rek yàlla dana ko muccal ni mënee nar noone nga xam ne day dem bay woote yàlla te képp kuy woote woo yàlla kooku moom maanaam ku mën a fen féetewul a kanam moo tax ñu naan ñenn ñiy nettali xadis ñu leen di naan màndargalee kooku naan leen dajjaal dajjaal kon baat bu tar la dajjaalun min ad dajaajilati noonu lañ koy jamoo moo tax boo demee si téere yi ñu tuddee kutubu rijal ay temps nga dégg ñu ko wax dajjaalu mina dajaaji la loolu baat bu tar la aw wadda wadda mooy koo xamante ne nii day sos xadiis aw kazaab wala koo xam day fen kazaab nag bu ñu ko waxee mooy kuy fen si xadiisam si ay waxtaanam donte fenalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte nag mën nañ kaa wax si koo xam fa aslan sa day day day tuumaal yeneen bi saa di ko di ka naral loolu yëpp mën nañ koo wax kaddaab mu ne wa ashaluha ba sa gën a oyof nag ba sa gën a oyof mooy lay layyinun ku nooy la say ul xifdi ku ñaaw mokkal la fiihi maqaal moom de wax nañ ci moom wax nañ ci moom kon nga gis ne lii daf la tuddal bi gën a tar <coughs> tuddal la bi gën a bi gën a oyof diggante bi nag am na ñeenti yu fa nekk yoo xamante ne nii bu si nekk étape la loolu jar a xam la moo tax ma doon wax naan su dee ya tar ya ñett ya moom kenn du jël seen ab xadis waaye su dee yi oyof la yi ñu tuddee si buntu jam kuñ ko jam ku mel noonee xadisam mën nañ kaa yëkkati su fekkee ne am na leneen du koy dëgëral comme ki ñu wax layyinun sayyi'ul xifdi ma fiihi maqaal daifun daifa fii daafun fii nadar su fekkee ne Buxaari yi waxu ko ndax Buxaari yi bu waxee fiihi nazar si ab raawi loola jarx shadid la man jar jarx bu tar la loolu nga gis ne kon borom xam-xam yi dañuy dem ba teqale sax baat yi nga xamante ne nii ñoom ñëpp ñoo ko bokkale ak baat yi nga xamante ni kenn si ñoom moo ko doon jégle woo da nga gis kenn si ñoom wax benn baat boo xamante boo dégloo maanaa ja da ngay mel ni lii tarut fiihi nazar moom de dafa mel ni am na problème xam nga loola du baat bu tar waaye Buxaari yi moom dafa nekkoon ku amoon wara amoon ragal yàlla ba nga xamante ne nit na jël baat bu tar di ko wax doomu aadama donte loolu dara nekk si ndax loolu waxoon naa leen ne ñoom dañ koy def ngir aar xadiis yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo tax kuñ si mësaan di dinga def naan la an yakuna rasulullahi la an yaku la an takuna xasmi aw la an yakuna haulaai xasmi yowma alqiyamati ahabu ilaya min an yakuna rasulullahi salallahu alayhi wa sallam xasmi yaqulu lima lam tadubba an sunnati ma xulaa ma xulu ma xuloog ñii nii yowmal xiyaam ñu nekk samay xuloo waale moo ma gënal foofu yonent bi saasam nekk sama xuloo waale keroog yowmal xiyaam di ma wax ne lu tax doo jéemoo woon dàq lu bokkut sama sunna kon ñoom dañ koy def li ñu tuddee siyaanatan li sunnati wa li dikri dàq gu ñuy dàq lépp lu bokkut si sunna te ñu ko te ñu dugal ko si kon diggante boobu am na ay maratib moo tax dangay dellu si ñekk gën a leeral comme ku mel ni ibnu Hibbaan leeral na ko az-Zahabi leeram na ko si ay téeréem ibnu Hajar loolu yëpp ngir nga daal di koy mën a gën a mën a taxaw mu ne wa maratibu taadili étape yi nii laabalee nit ki tamit nee na lu bëri la wa arfauha ba sa gën a kawee moom it dangay ngay delluwaat si bëri rek mooy alwasfu ku ñu melal bi afala si baat bii ñuy wax af afala te buñ ko firee mooy moo gën a mën a def loola ka awsaqi naas comme ne moo gën a wóor si nit ñi moo gën a wóor si nit ñi kenn féetewu ko kaw si kóolute mu ne summa ma ba say topp nag mooy bu feddaliku bi sifatin si benn sifa aw sifatayni wala ñaari sifa ñaari melokaan comme ñu ne fiqatun yem sa loolu benn melokaan la suñ ko boolee nag ñaari yoon ne siqatun siqatun nga xam ne danga ngaa baamtu baat bi ñaari yoon loolu ak feddali la siqatun siqatun moo gën a kawe siqatun kese wala nga ne xaafidun xaafiz moo tax ay gis kenn kuñ ko wax si moom ba juróom-ñeenti yoon xaafidun xaafidun xaafidun xaafidun ak ba juróom-ñeenti yoon loolu day feddali ne kii moom ak mokkalam moom amut na table amul ku mel ni moom kon lu muy gën di bën bantu baat bi rek ngay gis muy gën a firi ne kii moom fa mu fa àggoon moo ko gën a kawale kuñ ko kuñ ko bamtuwoo kuñ ko bamtuwul si moom comme nii mu ne wala boog baat bi ñu bamtool kaat beneen baat boo xamante ne day firi ak laabal donte bokkuñ bokkuñ benn maanaa wala mu ne aw siqatin xaafid ñu ne siqa la xaafid ku ñu laabal la ku mën a mokkal la boole leen ba léegi loolo si la gën a kawe lay bokk mu ne wa adnaaha ba sa gën a suufee nag ba sa gën a suufee maanaam ba sa gën a oyof nga xam ne kiñ ko wax dañuy jël ab xadiisam waaye moo gën a oyof le ab xadiis keneen ku dut moom ka ko gën a kaw ak aw aw ak aw laabal mu ne wa adnaaha ba sa gën a woyof ba sa gën a suufee nee na maa ashara mooy loo xamante ne day junju bil qurbi si jege gu muy jege min ashali tajriixi si baat ya gën a oyof si baat yi ñuy jam ñu ñu nettali xadis ñay nettali xadis ya maanaam martabatul jarxi muy état bi ñuy jamee ñay nettali xadis état ba nga xam ne moo si gën a oyof état bi gën a oyof sa ña ñuy laabal mooy ba gën a jege bee rek nga xam ne ñoom ñoo sosaloo boo fa jugee rek daanaka dangay dem si bunt bi ñu tuddee buntul jarxi muy buntu jam ka cheikhin wala comme ñu ne cheikh la moom de cheikh la ah moom de sëriñ la rek xam day am si waxin sax ah moom de ab sëriñ la rek mooy maanaam faalewul lu bëri mu ne nag wa tuqubalu def na nangu at tazkiyatu laabal nit ki laabal kay nettali xadiis ba mu ne min aarifin su bàyyeekoo si ku xam la muy wax si ku xam fànn bii min aarifin bi asbaabiha xam sabab ya ñuy sukkandiku mën a laabal nit ki ak sabab ya ñuy sukkandiku duñ ko laabal kon nekkul ne ku nekk rek mooy wax ci fànn bi déedéet waaye dafa am ñu si wax ñu leen di nangul am ñoo xam bu ñu waxee duñ leen du leen nangul looloo waral al imaamu zahabi daal di taalif téeréem bu am solo ba tuddee ko maarifatu man tuqbalu jarhu maarifatu man yuqbalu qawluhu fi aw man yutamadu qawluhu fi ljarxi wa taadil mu ne téere bi lim siy xamle mooy ñi ñuy sukkandiku seen wax si buntu jarx ak taadil fii nag la borom xam-xam yi ñëwee nag di classé ñay nettali ñay wax si ruwaat ya classé leen si ñetti xaaj xaaj bi njëkk ji mooy ñoo xam ne dañoo taroon lool ba métti lool nga xam ne buñ gisee ak benn juumte ak ñaari rek dañuy jam nit ki te nit ko ñu juum amut étape boo dem nag am na ku tar Shu'batu bnul Hajjaaj dafa taroon Yaxya bnu dafa taroon Abu Xaatim ar dafa taroon Yaxya bnu dafa taroon kon ñooñee borom xam-xam yi dañ ne buñ laabalee nit loolu moom bu yeboo nga mooy ko sa ay baaraam yi dëgëj te xam ne moom duñ laabal kenn lu dul ne daf kaa yeyoo ndax koo xam boo juumee benn juum rek mu jam la ah bu la laabalee ne yow moom amoo benn sikki sàkk kooku moom ilayhil muntaha foofu la dayo bi yem moo tax ñu ne ida addalu waxidan yuaddu alayhi bin nawajib suñ laabalee nit ki loolu da koy moy si say baaraamu dey ndax loola lu dëgër lay doon waaye suñ jamee nit nag defal ndànk bul si basé wu ba ne kooku dañ koy jam dañ koy sànni il faut nga gën a gëstu xaaj bu ñaareel bi mooy ñoo xam dañoo digg doomu woon mooy ku ñu jam rek yeeyoo na ko ku ñu laabal it yeeyoo na ko ñooña ñooy ñi gën a mucc ayib si bunt bi comme ku mel ni Abdourahman ibnu Mahdi dafa digg doomu woon ali ibnul madini dafa digg doomu woon al imaamul buxaari dafa digg doomu woon foo dem rek da gis ne kii bu taree am na kuy jàkkaarloog moom si menn maas mi moom it dafa digg doomu ñii nii seeni wax si buntu jar ak buntu taadi la sopp dañ koy jël danañ wuuteeg moom nag si anam yu tuuti tuuti tuuti mais bëri wut xaaj bu ñetteel bi mooy ñoo xamante dañoo sàgganoon dama jotoon see tudd ku mel ni ibnu Hibbaan ak al-Ijli ibnu Shaahin ak ñu ni mel am na ñu siy boole al imaamu Tirmidi axyaanan am na ñu siy boole al imaamu Daaraqutni axyaanan maanaam ay temps dañuy tasaahul si baat yi ñi yi ñuy sànni waaye du saa su nekk mais ñamu taqooloon daal mooy ku mel ni ibnu Hibbaan al-Ijli ak ibnu Shaahin ak ñu ni mel. ñii nag moom seen ak wax si buntu laabal nit ki kenn du si basé wu seen ak wax si buntu jam nit ki kenn du si basé wu lu dul dañoo gis ne état bi yële ñaar ñële am na ñu ànd ak ñoom si la ñu def suñu laabalee nit ki am ko ànd ak ñoom sa ña taral boobaa mën nañ kaa jël suñu laabalee nit ki am ko ànd ak ñoom si ñëw diggu doomu mënees na kaa jël waaye bu muytoo si kenn nga xam ne dañoo wax waroon mbooloo ma moom kenn du jël seen ab wax donte ñii xaaj bu mujj bi am na si ñoo xamante ne ne dañoo sàggonoon si wàllug laabal waaye dañoo taraloon si wàllug jam comme ibnu xibbaan ibnu xibbaan bu daan jam nit ki da koy jam jam gu métti ay temps mu jam ko si loo xamante ne aajuwu sax mu koy jam waaye nag mu ñëw sofaan wa si koo xamante ni dañ caa war a jam mu daal di sàggan si moom xam nga loolu dafa mel ne contradiction la maanaam dafa woroog boppam loolu ibnu xibbaan dal na ko moo tax loolee ku yebbu bàyyi na bàyyi di ko bàyyi xel loolu nag li am solo mooy buntu bii doone Ibnu Hibbaan wax na si lii rek wala kii wax na si lii dama koy jël waaye il faut nga xam kan moo wax ak ban étape la bokk est-ce que dañuy jël waxam tout le temps wala bokk am na nuñ koy jàngatee ba mën kaa jël wala ñu mën kaa bàyyi. mu ne nag walaw min waaxidin donte sax ki ka laabal kenn la alal asaxi si li gën a wér maanaam nit kii nga xamante ne nii moom mooy nettalib xadiis ñu wër ñu ne ah moom de gis nañ kenn ku ko laabal est ce que war nañ ko jël wala waruñ ko jël ah kay war nañ kaa jël ñenn ñi dañ naan balaa ñu koy jël il faut ñaar laabal ko ndax ñoom dañ koy méngale ak li ñu tuddee ak buntu seede waaye buntu seede ak buntu riwaaye bokkut buntu riwaaye buntu àtte la mi ngi mel ne nga ñëw si juge bi àtte nga jox ko benn dossier moom bu xoolee ba xool li muy xool moom mooy àtte kese doone juge bi bu àttee il faut ma indiwaat beneen juge buy ànd ak moom si àtte googa waaye benn atte benn juge doyloo ma ko bokkut ak buntu seede bi nga xamante ne da ngay dajale ay mandarga pour mën a xam ba xam lii noonu la wéré la wéréwut maanaam moom miy atte mën naa déglu moom miy wax si waa ji mën naa déglu xool jàngat-jàngat waaye bu demee ba lii moo ko leer ñu gis ne moom yeyoo naa wax si buntu bi bu attee ne kii dañuy laabal xadisam dañ koy jël bu attee ne kii dañuy jëm xadisam dañ koy delloo moo tax mu ne walaw min waaxidin loolu mooy li gën a wér kañ la ñuy nangul nit ki nag ak laabam mooy su fekkee ne kenn laabal na ko dañ koy jël su fekkee ne nag mbooloo dañ kaa laabal moom waxee su ko ndax bu ñuy jël waxu kenn waxu mbooloo ma waxi nopp dañ koy jël ba tamit muy xaaj bu ñaareel bi su fekkee ne moom imaam la bu siiw moo tax imaam bu siiw kenn du ko laaj moom lan mooy xaalam si jarx wa taadil comme ku mel ni Malik shuhratu Malik waaye ku nekk ko xam doo ñëw naan Malik lan la borom xam-xam yi jarx wa taadil wax si moom loolu boo ko waxee rek ñu xam ne kii moom day maanaam ku teeraateer la si fànn bi waaye ki xam fànn bi moom kenn du laaj Malik moo tax Malik moom la ñuy laaj gaañi waaye kenn du laaj gaañi Malik kon ki siiw comme Malik ni mu siiwee ak Shafii ni mu siiwee ak ñeneen ak ñeneen ni mu siiwee si bunt bi ñooñu kenn du leen laaj Buxaari yi bul ko laaj mukk ba xam est ce que moom dañoo war a jël ab xadisam déedéet boo ko laajee rek yow daanu kooku dafa siiw siiw woo xamante ne ni siiwoon moo ëpp doole ñaari nit di ñëw fële di géewee fee naan Buxaari dañuy laabal xadisam wala dañoo moom ku dëgër la woon déedéet ndax moom yàllaa ko siiwal ba mu laab ba noppi kon ku mel noonu dañuy jël xadisam donte sax amul kenn ku wax si moom nee na wal jarxu nag jam nit ki muqaddamun moom la ñuy jiital ala taadili si laabal ko su fekkee ne dañoo jàkkaarloo kenn nit ki ñii jam ko ñii laabal ko naka la ñuy jëlee ñaari wax yi nee na jarxa ba la ñu jël waaye nag mu ne in sobera su fekkee ne dafa bàyyeekoo dafa ñëw mu bayyinan aw mu bay mu bayyanan ñuy leeral sababu la tax ñu jar ñu jam ko ah moom di ko wéree di xadis la ndax lii ak laa il faut mu leeral la tax mu jam ko moo tax mu ne min aarifin bi asbaab yi waaye nag mu bàyyeekoo si ku xam fànn bi ku war a wax si fànn bi mooy aljarxul mufassar jarxu woo xamante dañ kaa firi wéradi am na lu ñu ci wax loolu yépp lu ñu gàttal la waaye lan lañ wax si moom il faut nga firi lañ wax si moom mooy dafa fàtte woon walla dafa doon mokkal di fàtte dafa naaxoon yu ni mel noonu loolu lu ñu firi la kon su fekkee ne taarudul jarxi woo taadil dafa am imaam ñëw jam beneen imaam ñëw laabal foofee contradiction am na naka lañ koy jëlee dañuy xool ba xam jarx ba firi nañ ko su fekkee ne firi nañ ko rek booba jarxu ba lañuy ñuy jël boobaa jarxu ba la ñuy li tax ñu koy jël liñ koy euh, taalilal maanaam lu tax ñu koy jël sabab bi mooy dañ naan li anna maa aljaarixi ziyaadata ilm xafiyat ala almuaddil bi mooy ki jam dafa am xam-xam bu dooleeku si moom boo xamante ne ka kay laabal moom àggul si loola ki kay laabal moom daf ne moom lii la laala laala dëgg la kii jam danaan la man d'accord naa si lii nga wax waaye am na lu ma ko gisal si dundam loo xamante ni des na ko loolee moo tax ma daal di koy jam kon moom moo ëpp xam-xam si fànn bi si nit ki ñuy xool ay mbiram moo si ëpp xam-xam ka kay laabal xam-xam boobu nag dolleeku si xam-xamam moo tax ñuy jël xam-xamam di jël waxam di ko féetale kaw waxu ko ka laabal mu ne nag fa in xalaa su fekkee ne nag dafa wéetu dafa dàqu moom kañi jam anit taadili si lenn lu koy laabal maanaam amul kenn ku ko laabal nee na foofa nag qubila def na mën a nangu mujmalan maanaam qubila def na mën a nangu aljarxu foofa li mu si jublu mooy jam ga mujmalan mooy ñu daal di koy gàttal bañ a wax sabab ba bañ kaa firi alal muxtaar si li gën a wér si liñ tànn na ndax foofee ñaari mbir rek moo mën a am benn si ñaari mbir mooy kii kenn laabalu ko waaye am na ku ko jam suñ jëlul waxu ki ko jam boobaa mënuñ kaa laabal ndax amuñ ku ko laabal kon kookee fi muy taxaw mooy kenn xamul xaalam si laabal ak xaalam si jam ku mel nii nag bu ñu gisee kenn ku ko jam même bu fekkee ne firiwut sax la tax ñu daal di koy jam jëfe ay waxam moo gën a am doole neenal ko ndax même boo ko neelee neen sax du tax nga daal di jël ab xadiisam te ba mu wéetoo si laabar rek loolu mandarga la ne kii am na lu nekk si moom loo xamante ni nii moo waral boroom xam-xam yi xamuñ ay mbiram comme ku mel ni dafa néew néewle ay xadiis wala yu ni mel ku mel noonu nag jam ga day oyof lool day yomb lool te ku mel bu ekkee bu amee ku ko jam doon donte sax dafa tudd baatu jam ba tel firiwut la tax mu daal di koy jam loola dañ koy jëfandikoo si bunt bi moo tax dañuy naan li anna imaala qawlil jaarixi awlaa min jëfandikoo waxu kaka jam si bërëb bi moo gën a yey ñu daal di koy neenal ndax boo ko neenalee moom fii xayizil majhul lay nekk maanaam ku ñu réeree lay doon te ku ñu réeree mooy ku ñu xamul ndax moom dañuy laabal ay xadiisam wala dañ koy jam te ku ñu réeree ay mbiram kooku dañuy dellopp ab xadiisam comme ni ko boroom xam-xam yi leerale si téere ya euh, si gàttal xajar lii la tënk si bunt bi du buntu jarx wa foofu lañuy taxaw insha allah suñu jotaay bi hada wallahu aalam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira